Pape njuug nee na njuug yàqu ci dara boobu nee na xaalis kaay kaay waaw mbër day maye de garmi day maye jaar naa la maa ngi sant borom yu wér wér wér gannaaw ma sant yàlla julli si yonante bi maa ngi sant samay ñaari waajur di gërëm waa Tëngéej bu baax a baax a baax a baax waa Mbaaw waa Mérina Colobane Mengo B2 Këri Kaw Këri Suuf Kasor Arafat di woo monsieur le maire set bologu tikke lañ jël set bee yooyu yëpp bolog yooyu yëpp ñu ngi ko koy ñaan dinañ ko seet si pour mu jëndoo ñu set bologu tikke yooyu yëpp parce que ñoo jël engagement boobu jël sept bologu ticket monsieur le maire Omar Ciss ñu lay woo si lool bu baax yow mën na ko te yàggal nga ñu ko defal ñu lay ñaan incha allah du au fond du cœur nga jëndal ñu bologu si ticket yooyu yëpp incha allah. auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim maa ngi yàlla bu baax di nuyu ñi fi nekk ñëpp di nuyu suñu grand Fallou di ko ñaanal jàmm di ñaanal mbër yëpp ak képp ku fi teew rek. du nuyu ñi nga xamante nii comme li boo Diop wax rek mooy journaliste ñoom ñëpp ñu leen di bëggee bu baax a baax a kenn waaw di sant ñu ma àndal ñëpp ku mel ni Moussa Abou xam nga Sita gaa yëpp maa leen di bëggee daal leen si Lamine kii maanaam aw ma su ma ciy xalaat. déggoo ma maa bu doole maa dàq bëre maa fit maa gën a ñeme entraînement te kii du maak moom. ak dafa garaaw de. wallaahi bu taxawee xanaa mu ñàkk a dëggal boppam bu taxawee maay jël combat bi gën a gaaw ci saison bi Feussou Ndaw moom kenn jarul nga koy jéem a tàggat naan dinay dem wala du dem man damay ñëw au ma dem te ñëw bu arbitre soufflé xanaa nga dem mais man damay ñëw barki yonent yàlla mu xam ne damay ñëw. waaw naa ko xaar incha lenn laa koy wax mboolem ku mu si bëreel man maa si gën di pànk. bay du sóoru maasu mbaayam sàkkamtumaa ku war a mën a maase moral maamam Karba ngay waxal la doomu réew bi <laughs> Lamin xam nga la laa wax yow ki man kaka man maa man ba yegg si fuuf déggoo ma de ki la kaka man maa ko man ba yegg si fuuf yàlla Muhammad Karbala boo dëggalee sa bopp yow arbitre suuf la nga suul say tànk yàlla mi ma tiim xamee ma mbaar la ma yéeg sa kaw mu lay neex mu lay naqari dañ laa yónni yàkkamti ma ba wala laa jógee yaa may dégg du ma mbëru koñ du ma mbëru ay ay juróom-ñaari kër yooyu noonu mbëru gox laa loolu laa dëkk ba wala laa juddoo yaa may dégg gox moo ma yónni seize village ndondol bi yëpp maa leen di woo barki yonenti yàlla mu xam ne ñooñu bu may bëre kenn du am jàmm kon ñooñu dinañ nekk sama ginnaaw man may ñëw ak Karbala mii nga tuus sa tànk yi mënu ma comprendre dama lay waaxu daan la dem ñibbi aw ma ci xel ñaar jërëjëf voté leen rendez-vous la huit la. rendez-vous bi la huit la incha allah xam nga wax di tallaxu rek di la laamu ngir yàlla war a suuri bu jour ba na ngay wax nii na nga ngir yàlla na nga ko taxaw dëggal ko nga xool. fii fii fii fii dafa mooy musu fii bu yëgee Karballah am na combat ba gars di ñëw day ciipatu. waaye sigil nga wax bàyyi lox bi. sigil nga wax normal nga jàkkaarloog man du yàq ñee la de maa ak yow la ba wax man da ngay bàyyi lox bi nga wax normal correctement wala boog. dama la la arène bi day musu si su yëgee ne Karbala day ñëw ak samuraay day ciipatu te yow bu jour ba dinaa la duma dinaa la daan paa nga mag nga barki Sëriñ Bamba lu leer laa la yow 2012 bi laa la wax boobu ñun suñu mag sa bëre yi 2012 boobu fan la 2012 laa la wax 2012 te ma la wax yaa a xam sa dëkk maa ngi tuub maa ngi jël 2012 boobu fan la sa diggante ak yàlla ku gën a nekk xale yàlla na ko yàlla may na barki yonent yàlla xam maa la gën a doon ndaw maa la fit maa la dàq ñeme maa la gën a lekk maa la gën a nelaw est-ce que yaa ngi dégg Maître Sène moo nekk sama ginnaaw Maître Pape Sène barki yonent yàlla Muhammad da ciy teg bu baax kooku moo may jàppale kooku fayam xam nga noonu la demee nag di bëggee fii musa sama doom la da cee teg loxo bu baax a baax jàppale ma barki si naa taal otoom indi ma gars yi ma àndal waa ndonul baax ma kenn ñaari tëli Grand Dakar Biscuiterie asalem bàyyiwuma kenn ñoom ñëpp maa leen woo di leen wax ne kii moom. woo nga ñëpp woote xam nga lan laa ci hésité ki bu ma leeroon ne CNG du ma def dara ak li ma dig sama yaay ci reliquat bi warate alxuraan dama koy dóor fii léegi. dóor moom du fi am de kii la jour lamba xam nga la mooy ëppale boppam bu rëy la ma ëppale si lamba ji. di si woo waa Médina yëpp di nuyu sama gars yi Go Thier euh, Ndiagne Thiaw Yaaya. <laughs> waaye si amoon doy di siyaar ñëpp di jégalu nag presse en ligne bi amuñu seen fay billaay buñ tolloo fii si benn niveau bi ba gars yi commencé ñoo xam yéen la yàlla na seen jaamu yàgg waa di woo waa Mérina nag cëw leen Colobane Mengo B2 këri kaw këri suuf jaloore Arafat mbaaw Arafat di woo àdduna man mbaru àdduna laa man xale yi ñoo bëgg di wax xoolal monsieur le maire Omar Cisse ñu ngi koy woowaat bu baax a baax a baax set bu longu ticket lañ jël ñu ngi ñaan nga set bloc yëpp incha allah xale yi dem ñëw stade Paka Boy sama pro bi international bi ñu ngi lay woo nga ñëw defaat comme noonu am sama pro bi incha allah ñu ngi lay dinañ ñëw nga jëndal ñu ñaari balogu ticket loolu ñun la koy sas yow. jërëjëf Babacar Xuma l'international aussi tamit sama pro bi maa ngi lay woo nga ñëw jàpp si bagage yi bàyyi naa ko si loxo Pape Ndiaye aussi tamit ak Adama Gulla. dama sant ñi ngay woo ñëpp da nga leen di teg yaa ma mbokk waaw baax déglu ma ñi ngay woo da leen di sonal parce que ñooñu dañuy ñëw concentré wu ci yow nga ñàkk ci lu yomb. ma téeméer sant nga ba pare. sant ma kii waaye kii di sant ay mbokam rek maa la fi mbokk nga bëgg maa waaxu fii nii. sant waa Ndondol yëpp xam nga lan la sant nga ba pare bàyyi ma sant yaa bu ma insister nga insister nag dama lay ramasser fii waa Jide dama lay wax rek. may ma rek wallahi une minute dama lay ramasser fii dama lay wax rek. waaw waaw dem na ci barke yonent yàlla ma sant Lamine dama war a sant maa ma sant yow billaay walaay CNG comme ni ma la wax rek ñoom laa hésité ñu dagg sama reliquat rek daa am lu mu ci digg sama yaay moo tax nangu ma def dara bu fekkutoon du lool bu nekkoon du lool fii laa lay daan le huit ñëw ma daanaat la yaa may dégg maa ngi sant waa Ndondol ñëpp waa Bawol ñëpp maa leen sant la maa ma rek ngir yàlla Lamine dama am ñuy sonn ci man eh, am ñuy sonn ci man barki Seydina Mohamed xam nga Ndondol 16 village bi yëpp maa leen leen wax ne combat yi yàgg nañ ci te ñu ngi góorgóorlu nañ ñëw teg ñu loxo fii du suñ place du ma kii ñi ma àndal ñëpp maa leen di une fois di santaat Moussa baax a baax a baax di sant Pape Sène jërëjëf daf leen toog te yéen nag boo defee ne yéen fi nar a leewaatoo bu jëmale suba mu ngi leen dem kay jërëjëf waaw bàyyi leen bu ngeen xeex kay dem leen géew baa ngi noonu dem leen xeex Gibson yóbbul ma Gibson ay ca banqaas booy